goo xam ni kër Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Moustapha magam ju ji Serigne Mbacke Madina moo ko joxoon la ko sëñ Mbacke Madina joxoon kër gi bi ko sëñ Mbacke Madina jox kër gi da koo daggaloo woon këram 15 mètres 6 30 ni ko joxoon ma ko sa menn mbokk mu jigéen mu ñu wax soxla muy mu jox ko ko Serigne Mbacke Madina yëkkati barab bii jox ko Cheikh Mouhamadou Fadel. février 1980 la Serigne Mbacke Madina jël kër gi jox ko Cheikh Mouhamadou Fadal kër gi nag li lii bi fi Cheikh Mouhamadou Fadal di bàyyi ko boobu njaboot gii fi bàyyi Cheikh Mouhamadou Sow mi ji mag du tànk la ci saayir juróom benn at ci ak ay rakam ca jamono jooju nag am ñu def ay pexe ak i luubal ba sàcc kër gi jox ko ay jaamur. que ab robinet ab seng a ngi woon ci biir kër gi ku taxaw ci pencu Cheikh Moudou Moustapha mii moo dem kër doomi sëñ Moudou Moustapha koo jël njabootu borom kër gaa ne ci kër ga ka sëñ Cheikh Mbacke ñu fa ne ay doomam ka sëñ Mbacke Madina ay doomam ka sëñ daan xariloo ay doomam ñoo fa ne ka sëñ Ahmadou njabootam ka sëñ Aliou njabootam lan moo tax que Cheikh Moudou Fall gi njabootam duñu fi ne loolu xel mënu koo nangu kon ñii ne ci kër yi nañu waaj mayetuñu leen ñuy jaay kër gi ba teg ko ci loxol borom mayetuñ kenn mu ubbi fi place mayetuñ kenn mu di ko liggéey lii alali jaamur la ku yor alali jaamur nag bu ko borom soxlaa te nga koy delloo. bis na ko tey ku yor caabi na nga ko delloosi dem nañ ci Cheikh Ahmadul Mokhtar joxe na ndigal kër gii Cheikh Amadou Fadal moo ko moom. waaw waaw dem nañ ci Cheikh Amadou Muntaxa mi fi nekkal Serigne Touba nee na kër gi kër Cheikh Amadou Faare la ndigalu sëñ Mbàkke Madina moo tax sëñ Fallu dagg ko jox ko soxna Ummi Mbàkke ginnaaw bu mu jootee ndigal ci na jël kër gii ci sëñ Mbàkke suma jox ko sëñ Fallu ba pare kër gii nag ginnaaw bu Serigne Fallu nelawee Serigne Moustapha mii di ab doomam ak yeneen tu tànk yoo xam ne ñaar lañ ñu di ay berantal ba fi sëñ Fallu di di bàyyi ko ginnaaw boobu ba fi gi dara fasu sàmmal ko sëñ Fall mi ko dénkoon ba fekki ko man nag ci Kàbbu Fall nii ma nekk sama ginnaaw ci lay tàmbalee tawlu bi sëñ Mbàkke Madina la yaakaar sëñ Mbàkke Madina sëñ Mbàkke Madina yaxat ko bind ko mu leer nañ mu tawlu bi sëñ a am def ni soxna maam def ñi ci des nag ñoo kenn ku ci yaa ngi ci sa kër tëdd luye place bi di ko fayeeku di lekk wala yeewul am na jot am li fekk lii leer duñ fi jóge bi seew tak bâche yi tëj ku seetaan dagaate ku àdduwul dagaate tey buñ fi ñëwaatee façon bi ñu dana wuteeg bii tey nag duñu ñu place taaluñu place baariwuñ bett defuñu dara danoo ñëw wax leen ak suñu alliance wan leen ni leen ñii ñoo moom yëf yi buñ bu leerul nag bu ñu ñëwaatee na ñëpp seere ne mooy nondol Cheikh Mouhamadou Fadal moom Cheikh mu Moussa moom Serigne Touba te nekk ca kanam tey. ñoom ñi nga xam ne moomuñu. nee na ñoom ñi nga xamante ni si moomuñu. Sëñ Touba jurul seen maam. Sëñ Touba jurul seen maam. jurul seen baay jurul leen. ñoom la jaral ñu gar ci seen bakkan. nee na comme ñoom la jaral ñu gar ci seen bakkan. moom mi sëriñ Touba jur Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Fadal jur Cheikh Mouhamadou Moussa mu jur ko. lu leen jaral. na moom lu mu leen jaral. moom jaral na ko lu ko raw. te nee daa fas yéene. man fas yéene maa toog ñoom ñuy xëy di di ubbi. fasul yéene toog ñoom ñuy ubbi palaas yi. di ci liggéey ak di ko luyee ñu di leen fay.